jërëjëf Mariama ini mbaara ini mbaara ifana ini mbaara ay na ku ku ku ku ndeysaan ku saf xorom la mm-hmm. eh, te itam fu mu nekk rek ndey dafa bëgg nit ñi yëpp nekk ci jàmm mm-hmm. saa ñëwaan rek duñ dee yàkkamti mu dem wala buñ buggee liggéey si dañ ko ne mën <laughs> a demal ndax ñu mën a def li ñoo li ñoo bugg a def <laughs> nit yi jàmm la mm-hmm. moom itam ñu ngi ko gërëm bu baax a baax ci li nga xam ne moom la def xam naa ne li ñoo wax ci kàddu bi dinañ ci ñëw ci programme xëy na li ma bugg a laal tuuti rek mooy foog naa koola si yëpp li ñoo wax rek mooy mbiri colaay bi mm-hmm. li xale yi sol mm-hmm. eh, li xale yi sol am na yu ci xale yi jënd li xale yi sol lu ci kilifa yi jënd li xale yi sol am na yu ci kilifa yi di gis li xale yi sol am na yu ci kilifa yi gis waaye léegi lan mooy solution bi lan mooy sol problème boobu mhm. yaakaar naa dañ war a delluwaat ci démba mhm. delluwaat ci suñu aada mhm. ndax nit ku nekk lu bari li ko tere li moo def mooy jom ga salaamaaleykum ah. salaamaaleykum waaw waaleykum salaam wa maa ko Aliou you know waaye suma lights dafa demoon off. ok lights demoon. Um, ay da maa ngi leen gërëm di leen sant. Mm. Um, and uh, ngul um, because of the fay ne fag ne nekko fa woon. Mm. moo about the Ebu community nga xam ne ñun moom ngeen ah network bi baaxul ndeysaan oh network bi baaxul de déggante bi leerut ñu ngi cee jéggalu sëriñ kooku moo fi kooloon bi nga dugga si di wax afeer yi sign language waaw xam naa defam leneen lu ci bëggoon a yokka nag waaye ndeysaan network bi eh, munta dem loolu nag am na solo ñun doon suñ sago la eh, képp koo xam ne rek yaa ngi jàkkaarloo ak télé bi li ñoo wax di ko mun a dégg nga mun ci jëriñu am na keneen ku nekk ci line bi asalaamaaleykum. bisimilah. yaa ma rek kay. jërëjëf. Hmm. waaw. bëgg def ci société bi tam na seet. société bi nii noonu la. te sa dogal bi dafay wane ñu dem ñu tis sax. yaa ngi wane sax. te société bi noonu la bi doo wane bàyyi def rek. seet nga gis société bi nga xam ne nee foog nga fële ñu añaanante. doo koy ëñëwante yu bon. yoo xam ne. yëpp la te la. xalaatal la. te la. 뭐 스마트를 전화를 아 받으면 내가 됐고. 음. 그렇죠. 아 국가를 그들의 그들이 양국에서 아우. 내가 알았다. 와우. 오케이. 제가 제가 제가 내 제스는 보고 그냥 붙네. jërëjëf. daf ko Mm. jërëjëf ñu ngi laa gërëm bu baax yow tam ñu ngi laa gërëm sanku ya jaara ah jërëjëf waay ah nunu ñu waa jaara ndeysaan daa bi dog na ah, Babacar ñu tëj ñu maa woon ne wax bi jeex na takk waaw bëggoon ñu jox ay sëriñ mm. ci am am solo mm. loolu dina ñëw ci yeneen programme yi waaw donc day dama bëgg ñaan la loolu rek man sëriñ tëjal sëriñ tëjal Eh, jërëjëf kon fanaan li ñëw tijé rek moy gërëm mbokk yëpp eh, fàttali leen nak ne liñ doon wax yëpp mu ngi déllu ci mbiri cholaay gi ak eh, mbiri baat ci kër gi lépp lo xam dina jubanti xalé yi mm-hmm. ndax xalé yi moy ñi nga xam tay ñun ñom lañ am mm-hmm. muy suñu njaboot ak suñu njaboot yi morom ak suñu njaboot yi dekkandor njaboot gi yëpp njaboot yi réew mi la te njaboot googu ñooy doon ñi nga xam ne ñooy yore réew mi ëllëg mhm. ba tax na kon lépp loo xam ne lii rek dina leen jubbanti wala dina baax ci ñoom e, baax na waxtaanee ko mhm. li ñu wax nag ci mbiri colaa gi du ci jigéen ñi rek colaa gi dem na ba ci góor ñi ak jigéen ñi e, te it nag foog naa ne lii ko lal yëpp mooy fexe daal def kersa ci xale yi. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu am na solo bon nag bokk yi eh, waxtu wi jeex na tag fii lañ leen di tàggoo leneen loo leen am pour yokk ñu xalaat rek mun ngeen ñu ko yónnee eh, ñu ne neen la at gmail dot com eh, wala boog ngeen téléphone ma 9905 777 benn tey rek ñu ngi sàkku ci yéen seen xalaat ngeen yokk ñu xel bu baax a baax ba beneen bés bu baax incha allah ci programme yi ñu ne neen la jëf

شيخنا تجاني أوراده منجزة لجاني وأبنت من يصف الحقيقة في وده لازم لي دريقة جعلنا من أهلها بجاي منسها وجاء فضلها لما صلاة مسلها بديد فيه وأسوة دجا دريد سميته بمنيتي مريدي أهز ورد سهنا سديدي سميته بمنيتي مريدي أهز ورد سهنا سديدي لولا مها لتأديني لجئت للمذكور بدليلي لكنني أرجو من المهيمن كسل سائل ميزان حسني فإن دزات تجر بتسليفي لما زكاة لك بتحقيقي حسم آئل بأني لست على لساني أنني سلفت لكنني أرجو من المهيمن حزبي من الخداع والتصريف وأن يكون سنزام سببا إلى ابتداء درجاء نجبا وأن يميتني على دين نبي وحب سيحنا الإمام ديبي كنت لنا بزدها وجودي وبرسول سيد الوجود عليه صلوات ربي وآله سم زرا وصابي فاصطدموا من إلى دبته وهبه وهبها دبته ما أنجبته من الهوان في كل ما مدى من الزمان فمثله سهنا جاني حيسة دائرة حساني فما لهوى Digi Digimon.